dafa jàppal boppam loolu yëpp pour rek màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir loolu nag tey ñu ñëw fii ñun ñii nga xam ne ay doomam lañ ay jaamam lañ ay taalibeem lañ ay mbaamam lañu ndax ñooy Cheikh Ibrahima Niass am ko damay wax ne toujours képp yàlla may nga nekk taalibe Baay rek santal yàlla ndax yàlla moo jël Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass moomu defaral ko boppam teg ko ci kaw àdduna xam ne danga tasaare lislaam ndax tey ci àdduna bi amut fooy dem ci lislaam te Cheikh Ibrahima Niass yeggala ko te Cheikh Ibrahima Niass moomu tey soo ko doon laajte ci zaahir ci ay atam xam nga ne ba muy dund ci at amut ci kaw suuf lu mat tey mu ngi nii génn na àddina ci diggante ba mu génnee àddina ak léegi mu ngi nekk ci ñeen fukki at ak ñeent ci ren waaye ñeen fukki at ak ren foo dem ci réew tubaab yi nga xam ne comme ni ko sëñ bi waxee doy na rek Cameroun Afrique la waaye man Europe laay wax ak Asie ak foo mën ci dem ndax Cameroun bii su fekkee ne nekkoon nañ ci bërëb boo xam ne gëmuñu ne woon yàlla gëmuñ kenn lu dul dañoo yor seen xaram di ko def tey ñu dem ba nga xam ni ña ngi fay màggal lislaam di fa màggal xadara Mawlaana Cheikh Ibrahima dañuy wax ngàcca ngaala Cheikh Ibrahima waaye ci àddina bi tey amul fooy dugg ci réewu ndax man nii di wax ak yow tukki naa ci réew yu bëri waaye man gis naa ay nit yoo xam ne tubaab yi weex tàll ci almaañ ñu ñëw bokk ak man xadara juma bokk ak man wasifa xamuñ fan la Kaolack féetee xamuñ fan la Sénégal féetee waaye gis Cheikh Ibrahim gis ko ci internet gis ci liggéeyam gis ci ay téereem gis ci lim taxawal lislaam looloo tax ñoom ñooñu ñu dem ba nekk taxaw nekk ay jullit tey di màggal kon nag fii ñu nekk tey ci jëppal ñu ko sëñ Aaqib bu waxee suñu xaajo yëpp faju na di wax taalibe yi ñu ñuy seetaan sax di seetaan Medina TV sax seen xaajo yi def ciy faju ndax damay wax ne Cheikh Ibrahima Niass bëtam ku mu xool rek sante ko yàlla waaye kooku xool bëtu euh, Cheikh Ibrahima ñas wala bëtam gis Cheikh Ibrahima Niass ñun suñ ko xoolee rek dañuy tëbb ci moom ci Cheikh Ibrahima Niass kon damay wax ne fii ñu toog tamit képp ku seetaan écran bi sax yàlla daf lay boole ci teraanga jooju kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla mu am may am lépp yàlla nañu may mbëggeelu Mawlana Cheikh Ibrahima yàlla bu ñu ko manqué mukk heure buñ xëyee rek yàlla nañuy am mbëggeelu Cheikh Ibrahima Niass ndax loolu naar ba waxoon na ko muy Mouhamad al Misri nee na junney kilo maarifatu billah su koy am benn kilo mbëggeelu Mawlaana Cheikh Ibrahim moo ko ko gënal kon bëgg baay moo war bëgg baay rek a wóor te yàlla ñu ko koy ñaan saa su nekk mu may ñu ko parce que baay tamit moo doon ñaan mbëggeelu yonent bi te bëgg na yonent bi ba jeex tàkk ci moom te du jeex mukk ci moom moo tax ñun tamit dañuy ñaan yàlla toujours rek yàlla di ñu may mbëggeelu baay ñuy jeex ci baay di ko liggéeyal yàlla di ñu ko wan ci àdduna di ñu ko wan ci